bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana Muhammad ibn Abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim ixwatil kiraam maalil ulamaa asaaba saada samahat shuyuux asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk te du ñu dégle ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balwaq di leen balaq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yal na nu boole jéggal. Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fi ci Ndakaaru dellusiwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar jaar yi mag réew mi la ah. sema al minbar. Ah. ginnaaw ba nu sante suñu borom subhaanahu wa taala nag ñu doole santaat ñaan moom mi nu mayoon. Euh, ajjuma jëlee ñu ñaan ko mu may nu fekkewaat nanu alhamdulilah rabbil alamin te moom nee na ku sant mu dolli la ñu doolee sant bu baax a baax a baax mbokk yi nag tey xam naa ne may jégal nuyoo bi ndax dama am dama am invité de taille <laughs> invité boo xam ne mënu ma ko boole ak nuyoo yi xam naa yéen ñi nga xamante ne yéen a naan miin ñuy jaar seen tur leen nuyu tey moom da ngeen ma koy jégal waaye su ma waxee rek nuyu naa cinq continents yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp muy Afrique Europe Asie Océanie amerique ñeenti continent yëpp képp ku fa yeewoo rek eh, nuyu nañ la waaye nag ci biir Afrique ci biir Sénégal ci biir Ndakaaru baarakallaahu sunu gan gi nga xamante ne tey moom lañu ñu fi dalal ñu fas yéene waxtaanee Ndakaaru fas yéene waxtaanee askan wi di askanu Lebu seen relation ak seen waaye balaa booba alxaaji imam Mor Seck ngi ni toog ci biir studio bi moom moom ñuy eh, présenté émission bi eh, Albargny kon imam ma bàyyi la nga nuyoo bu ñu bari ñu doon dalal sunu gan gi imam tafaddal mashkura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين رب السماوات ورب الأراضي رب المشارق والمغارب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم إخوة الكرام mbokk yi Euh, comme ni ñu ko dégg waxee ko mu doon incha allah nu euh, ngi nuyu ñëpp di ko cof si nuyoo bi ndax imam bu nuyoo les cinq continents rek kenn kenn génnut ñëpp a ngi si biir xanaa teg seen asamaan ak suuf nuyu di ñaan nag yàlla subhaanahu wa taala sunu invité bi nga xam ne ñëw na tey fas yéene waxtaan ak ñun euh, ci ndakaarook yëpp sa aju lebu yeeg jaar jaar diine yeeg yëpp si biir mu nekk thème bu am solo yal na yàlla baaxal xelam ba mën a tontu waa question yi di nga am des question yi incha allah Aliou leen nuyu di la sargal di tatagal da dama wax sànq ne yàlla ne boo santee ma dolli wa in shakartum la azidannakum kon yal nañu yàlla dolli sutura tawhid iman ihsan islam taqwa réew mu naat réew mu jàppandil fooy nekk rek yal na sa yal na sa aajo faju barakallah jërëjëf jërëjëf yaay maam macha allah yàlla yàlla nangu sa ñaan yooyu yëpp kon nag ba euh, fàttali mbokk yi tey dañu am sunu gan koo xamante ne leen ko dalaloon muy euh, Abdou Khadre Gaye Abdou Khadre Gaye euh, dañu ko soxla ci waxtaane lenn ci sunuy maam muy sunu maam yi libu yi bëggoon mu waxtaanal ñu ci ndax itam buñ dee jàmbat ni dañuy am crise de valeur wala dañu am crise d'autorité mën nañu ko nangu ndax li ñuy wan ci suñu télévision yi ak dina ko wan ci suñu rajo yi daanaka li ci ëpp lu ñu importé la waaye am nañu ay maam yu am jom am stratégie am xam-xam ba téye woon suñu dignité humaine ak suñu cir loolu nag day baax dëkk yi avancé yëpp dañuy gis feeñal seeni maam feeñal seen jaar-jaari maam rawatina yi nga xam ne dafa rafet te yëpp ñu fekkee euh, am ñu ko fekkee mbaa bu ñu ko fekkewul itam mag ñi bind nañu bàyyi fi moo tax émission bi ñu tuddee ko jaar jaar yi magi réew mi am na émission beneen bu ñu defoon jaar jaar yi yonent yi alayhim salaatu wasalaam waaye am na buñ jaar jaar yi magi réew mi tey nag ki ñuy invité moo tax ñu def ñu ñu stand by alminbar dugal nag eh, invité bi pour ñu waxtaanee eh, ndakaaru Abdou Khadir ginnaaw ba ma la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoo ak soppeek am di jàmm yi. Mm-hmm. incha allah ñu door a ñëw ak yow ci eh, waxtaan wi kon nag tafadal ya Abdul Karim. jërëjëf Ima Alioune Mbaye oustaz Alioune maa ngi lay nuyu di la gërëm di wax bisimilahi rahmaani rahim di ñaan yàlla mu jubal làmmiñ yi ba yaakaar yi nga xamante ne moom la ñu am ba tax ñu tëddal émission bi ñu jot ci di nuyu imaam imaam euh, Mor Seck jóge ca Bargny di ko seedaloo suñu mbégte ci bokkaax moom plateau bi euh, waxtaane jaar-jaar yi mag ñi nag dafa am solo. ndax dama déggoon ci imam ali Moussa Samb. Mm-hmm. imam ratib bu Ndakaaru. Mm-hmm. bokk ci kilifa yi. Mm-hmm. mu ne Abdou Khader nit ñi dañuy faral di fàtte ne. aada ju rafet moo mag diine. te moo ko ganale ci réew mi. ba tax mu mun fi samp ay reenam. te aada ju rafet jooju ju wax diine. ba tax réew mi meññ maam El Hadj Malick. meññ maam borom Touba. ñu mel ni ñoom aada jooju dañ ko war sàmm. ndax dafa juboox diine muy ngor muy moytu wax safaan respecté waajur bëgg moroomu doomu aadama jox ko cëram ni ko yàlla joxee cër loolu yépp mooy mag ñi ba tax tey soo waxee ne da ngay waxtaane lébu gi ak ndakaaru dañuy sawar lool ci ñëw ci mais soo nee léebu gi wax ndakaaru foog nga fàttali fi lébu gi jaar ba agsi ndakaaru ndax ci taarixu professeur Cheikh Anta Diop dafa wax ne cosaanuk lébu gi Égypte la. tubarkalla civilisation égyptienne ñoom ñoo ko sanc. ndeysaan fa la ñu jugee ba ñëw fii ci sowu jant. maa ngi ciy maa ngi ciy ñëw léegi. waaw léegi yow macha allah. waaw kontaan kontaan naa ndax xam nga mbër moom bu tuusee ma xam ne mu nar a bëree. dëgg la <laughs> jërëjëf. imaam yaakaar naa ni kontaan mi ma fàttali mbokk yi allah. Eh, am na sunu beneen mbokk bu ñuy wax Youssoufa Diouf. Mhm. ma nga dëkk ci gël Tapée. Mhm. bu sobee sunu borom dinañu ko dinañ ko dalal moom itam ci biir émission bi. Mhm. Eh, Euh, suñu mbokk Birama Gueye itam euh, gay bu bàyyi maam Abdou Karim euh, moom tamit dañ ko dalal incha allah ci ci téléphone incha allah pour wax rek mbokk yëpp bu ñu demee nag ba yëpp jeex daañu ubbi téléphone bi ku bëgg am loo complété ci biir waxtaan bi nga complété ko ci ku am loo ci laajit nga laaj ko ci yaakaar naa imaam naka nga déggee gum toujours toujours sa waay Abdou Karim si Gueye li mu si gën a neex ki mu ki mu dooree ki mu jëkk a tudd mhm. day borom xam-xam waaw ñu bokk école buy génne. Mhm. Aliou Moussa Samb Aliou Moussa Samb. Mhm. di suñu xarit. Mhm. di suñu te daanaka ab ab ab la. waaw. macha allah ndax nu bokk lépp. kon boo commencé tudd CREC ne aada yi fi newoon laata lislaam ñëw. jeegal na teer na tudd. Euh, kon euh, damay dëggal wax bi jooju ndax day borom xam-xam. macha allah di nekk imam grand grand mosquée. dëgg la ba passé na ko nuyu baax a baax a yaakaar naa ni sunu sunu directeur du ñàkk incha allah moom ah, xam naa ni ci ci libu gi. foofu tam fa la bokk ndax moom macha allah yaakaar naa ne ki ñu bëgg waxtaanee bala ñu ñëw ci moom muy Youssouf Amar Gueye incha allah ñoo ñëpp ah, dinañu xam ni moom tam ci la bokk ndax mooy directeur rajo bi muy Baye Omar ñu nuyuwaat ko passage ndokkeel ko ci sunu journée démb bi muy 27e ah, anniversaire u Sud FM. Euh, léegi nag Abdou Khadre mhm. comme ni nga ko waxee léegi. Mhm. Euh, xam sa bopp day tax yokk jom yokk góorgóorlu. Mhm. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne taallamul arwaaxa maa tasilum bihi wala wa taallamul awlaada maa tasilum bihi ar ar arxaam. jàngaleen njaboot gi cosaan yi ngir ñu xam nu ñuy jokkee bokk gi. kon loolu rafet na. Euh, ma bëggoon ko nga tàmbaleel ma nag askan wi di askanu lébu. Mhm. fu nu bàyyi ko. waaw euh, loolu. mënoo ci wax te tuddoo benn tur. Mhm. muy professeur Cheikh Anta Diop. ndax yàlla dafa def ne. Mhm. mu nekk nit ku am pas-pas. am fulla am fayda ci boppam. nekk xeexkat it. xeexkat ci lépp luy dëgg. mu gis benn moment ci histoire ne dafa mel ni doomu Afrique dañu sëngéem. ndax fi ñu jaarax tubaab bi fi ñu jaarax tubaab bi mooy trait négrière ak colonisation traite négrière bi euh, diire ñetti téeméeru at colonisation mm-hmm. diire ñaar téeméeru at nga boole ko muy juróomi téeméeru at te pour nga mën ko natt dangay ngay jàpp ne bi lépp yu duggee ndakaaru ak léegi am na juróomi téeméeru at mu mel ni ñaari tiis yooyu leen dal ak sëngéem gi ñu leen sëngéemloo dafa yàgg ba mënatuñoo siggi ñameetuñoo siggi ndax xeeb gi ñu xeeb seen bopp. Mm-hmm. professeur Cheikh Anta ne dañu wax ni nit ku ñuul bokkul ci xam mm-hmm. nit ku ñuul bokkul ci lu doxal àddina bi ba mu agsi fii. nit ku ñuul daal maanaam moom ak rabu àll ñoo yem àtte. moo tax ñu jàpp ko yeew ko di ko jënd ko jaay ni ñuy def rabu àll. mu tax ba bi ñu amee suñu indépendance pour ñu fitti sax. dafa jafe ndax complexe boobu dafa des ci ñun. Cheikh Anta Diop ci jamonoom nag mu ne xaaral ma xeex won nit ku ñuul ne ki la bëgg a daan day faat sa tur ci histoire. Hmm. li nga rafet la yëpp mu weddi ko. mu ko li taaru ci yow yëpp mu weddi ko. ngir nga weddi sa bopp. est-ce que ndaxte fiyax nit ki weddiwul boppam. Hmm. kenn du ko mën a weddi. Hmm. mu ne xaaral ma jug wane histoire dëggantaan bi nga xamante ne moom la ñu nëbb àddina. pour wane histoire boobu nag moo tax mu gëstu gëstu bi rëy bi mu gëstu. mu gis ne ndekete yoo civilisation égyptienne ba ñuy tiitaroo nit ñu ñuul ñu nekkoo fii ñoom ñoo ko sanc ci naka. mu ne ca taa ca jamono. ba Sahara bi commencé nekk désert. la nit ñi daw désert bi. dem dëkk ci tefesu dex yi. muy fleuve Sénégal muy fleuve Niger muy fleuve Nil ci tefesu dex yooyu nag la ñu sanc yi fa am. kon mu ne lébu gi Égypte la ñu jugee ñoom wax daanaka askan bi nekkee soowu jant Afrique bi yépp fa la ñu jugee il y cinq siècles avant Jésus-Christ. li tax ñu jugee fa. Hmm. mooy ba ñu sancee civilisation boobu ba mu taaru. Hmm. ñu bëri dañu ñëw attaqué leen Alexandre le Grand bokk na ci. Hmm. Perse yi bokk nañ ci ci attaque bi mujj boobu nag bu tombeex Perse yi ci lañu gàddaay. génn Égypte ñëw fii ba agsi sowu jant Mauritanie la ñu njëkk a sañc ànd fax sooninke yi sos dëkk bu ñu naan Wagadu ba Wagadu tasee ñu déplacé wu ñëw sanc Tekruur ba almoravid yi ñëwee la ñuy noonu di daw maanaam saa yu ñu leen songee bëgg leen néewal doole rek ñu ñu ñu ñu ñu ñu gedd mm-hmm. noonu la ñu def ba fi ñu ñëwee Lac de ba Njaajaan Njaay so eh, sanc jolof gu mag gi. Hmm. ba commencé génn réew yooyu nga xamante ne ñu bokk eh, kii ci la ñëw nag jolof ànd ak Njaajaan Njaay. Hmm. kon pour tënk ko bañ a Égypte ba ko Perse yi hmm. la ñu gàddaay jaar fu bëri ba topp dexu Sénégal gii ba ñëw Lac de Guiers am na sax ci bindkat yi ñu wax ne. ña ca get ndar. ñoom ñoo njëkk a sanc ndax ba ñu gisee tefes googu baax na ci la ñu sanc ñooy wàggeet ndar yi tey. Hmm. ñenn ñu des Lac de Guiers. Hmm. ba Njaajaan Njaay ñëwee nag. Hmm. àndax may sa waali jonn waaw pour ñu sanc jolof gu mag gi. ci la ñuy ñëw nag prêter serment d'allégeance àndax Njaajaan Njaay ci liggéey bu rëy boobu muy boole euh, royaume yi nekk Sénégal. ñu nekk benn mu sos le grand jolof. foofu nag toog nañ fa diir bu yàgg. bi ñu demee ba la leen daloon ci dëkk yi ñu gàddaay. dal leen fa. ñu solaat seen dàll yenu seen bagage de du ñu nangu ku ñu noon waaw topp jant bi topp jant bi topp jant bi ba agsi fii si suufa Cap Vert mais ñoom dañoo amoon xam-xam di xaar wala dañ daan fétiche lu tax rek ñu orienté wu noonu euh, Mbaye Diagne Cëddeem hmm. muy sama benn mag bu baax xam naa guddi gee tax boolewuma ko ci émission bi <laughs> waaw dafay wax ne hmm. xam-xam la ñu jëlee Égypte te xam-xam moo leen génn Égypte ndax yëgoon nañu la fa nar a xew xam-xam itam moo leen guidé ci fi ñu jaar yépp hmm. àndax ña ñu àndal sanc lañu ñu sanc liggéey la ñu liggéey hmm. soo demee ci mag ñi bërëb yooyu yëpp nga xamante ne ñoom léegi jaar nañ fa hmm. dañ lay indil ay màndarga yuy firndeel ne jaar nañ fa ci turu dëkk ya ci lañ fa bàyyi ci taarix lañ fa bàyyi ak lañ fay nettali kon boo xam-xam googu moom kenn mu mënu ko weddi ndax dañu naan topp nañu jant bi topp nañu weer wi topp nañu bidéew yi te bidéew yi ñoo leen di woon fan lañu war sanc ak fan lañu warul sanc ana fan baax sanc ak fan moo baaxul a sanc ndax lépp it ñoom dañ koy seet suñ koy seet nag mooy mandarga yi ñu wax mooy yàlla mu ngi waxaax nit ñi ci téere yi wante mu ngi waxaax nit ñi itam ci jamono ni mu bindoo ndax àddina bi nag muy doxee ku am xam-xam su téenee xool asamaan biddéew yi dañuy wax ak moom. ku am xam-xam su jàkkaarloo ñanaaw biy naaw. ñanaaw bi day wax ak moom. donc àddina bi lépp mboole dafay wax ak doomu aadama. ana ban doomu aadama nag moo mun ubbi ay noppam ba déglu la ko àddina bi wax. xam nga foofu sax li ma laaj. dañuy faral di wax ne tubaab bi juwoo gi ñuy juwoo àddina léeg-léeg. di fi indi fitna. ak safaan. day jékki-jékki seen nopp sakk. ba dootuñu dégg li garab gi wax. dootu ñu dégg lu géej gi wax. Mm-hmm. parce que lu nar a xew jamono. Mm-hmm. garab gi nga koy wax. Mm-hmm. picc yaa ngi koy sab géej gaa ngi koy wax bidéew yaa ngi woon nit ki ana ban yoon la war a jaar. xanaa kay nga ñàkk leen déglu. mag ñi nag dañu juboo woon ak seen bopp. juboo woon ak jamono. am dal. gu leen tax a mën tàllal seen nopp. déglu riir ba toll Cees. da fekk nañ nga Ndakaaru ñun riir gi bëri na si jamono ba riir gi nekk sa ginnaaw woon ak sax doo ko dégg day ñëw ba dal sa kaw lor la. alors que nag mag ñi dañu daan gis. Mm-hmm. dañu daan dégg parce que dañu daloon maanaam seen ruu dafa daloon. macha allah seen xol dafa daloon. Mm-hmm. seen xel dafa daloon ñuy bàyyi xel nag li leen wër lépp garab gi duñ ko dog te soxlawuñ ko. Mm-hmm. koo koy lébu. garab gi. duñ ko dog te soxlawuñ ko. macha allah dañu soo ko eh, dogee te soxlawoo ko. Eh. bàkkaar la. jërëjëf maa ngi euh, maa ngi commencé di la comprendre. Mhm. di commencé sama xel yi commencé liggéey. Mhm. Euh, tuuti rek ci secret li bu bi dama bëgg a xuus yow mais dama bëgg jox imam. Mhm. Euh, imam dégg nga sëñ Abdul Qadir li mu wax ci wàllu xam-xam. nga xam ni da nga daan déglu maanaam ilmu nujum fenn ci li mu wax. ilmu nujum parce que kuy déglu jant bi di xool biddéew yu delloo jéeg. dabraan yeeg dékk yeeg yoolu yu xam nga ne mag ñi dañ ko daan dañ ko daan jëfandikoo du xool nawet fu mu war a toll kañ la war a taw naa du xool tam jant bi taxawaayam di xool tam fan la fan la fan la fan la fan la sa biddee war a toll xam nga booy xool sax léeg ci mbëri làmb yi dañ naan la boo demee sa cimikaay na nga féete jant bi place sàngam wala na nga taxawee nee yooyu xeeti xam-xam yoo xam jarul jarul jarul xeeb imaam looy dugal foofu loolu day feeñal waxu toujours hmm. la ayatun li qawmin yaqiluun hmm. hmm. mu ne wa min euh, dara ci kaw suuf wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdi rabbihi walakin laa taxutu tasbihahu amul dara ci kaw àdduna si biir àdduna loolu mu ngi wax ak yéen yéen yéen a accès wul si entendement bu ngeen mën ko comprendre waaye nag am na ñoo xamee ni yàlla seddina leen travers ndax bu ñu demee Égypte y avait les Perses Perse mu nekkoon ak Byzance les les deux grandes puissances à l'époque di mhm. taxoon les musulmans jógee jóge Mbàkke dem Égypte yow tudd Égypte war nga aussi tudd Égypte mhm. ndax ku tudd kon tudd Égypte mhm. waxu gay day gën a féddil rek mhm. yàlla na léppay wax waaye kenn laa dafa konte tas bi waxam seen seen compréhension seen entendement ak seegu du ñu mën a xam li picc yi wax li géej gi wax li gelaw li wax lépp wax accès gu leen si. Mm-hmm. waaye nag fa zakir mm-hmm. dabiru barkal mm-hmm. waaw yooyu yëpp ay xeet yi ay xeet yi ay xeet yi kii la daal fa zakir ya ulul baa fa dabi ah. euh, léegi kon bu ñu dégloo baax ci ni nga waxee itinéraire bi mhm. kon dafa mel ni kon ci Égypte nga xam ne dëkk yi jëkk a mhm. euh, ci àdduna bi ndax Égypte ci ñu njëkk a civilisé ci lañ bokk mhm. ndax boo koy xool ci yonent yàlla su lay Yuusufa euh, foofu la ñu tàmbalee dëgg la ñu topp ko nag bañ egg ci Mauritanie sërëxule xam Mauritanie dañu bëri doole dañu bëri euh, sërëxule yi dañu bëri doole Mauritanie ñoom ñoo fa nekkandoo woon waaw ñoom ñoo fa nekkandoo woon mm-hmm. mm-hmm. ba ñëw ci gétt ndar gi loolu si mm-hmm. loolu am na solo trop pour xam ko ginnaaw bi nag ci lañu topp nag itinéraire bi ndax ku daan déglu alam bi ndax itam yàlla euh, du jékki-jékki rek euh, jiital mbii fañ li tax ñoom ñu am boobu xeetu xam-xam ba yëg ni garab yi am na lu ñu wax atmosphère bi am na lu ñu wax ci perse yeeg li nar a xew foofu. Mhm. looloo waral seen seen gàddaay. Mhm. waaye nag dëkk bu ñu ni ñuul rek bu ñu ko xoolee déglu alam bi. Mhm. déglu garab parce que garab bi dañuy wax. imaam wax na ko léegi. wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiihahum. lépp loo gis rek day sàbbaal borom ak suñu borom mais da ko dul xam. am nu ñu ba yàlla baax nag comme ñu teel Suleymaan moom moo doon xam wax yi picc yeeg ndeg ment yi. kon kon damay gën a dëgëral rek léegi fi nga wax. jërëjëf léegi nag ñoom bi ñu ñëwee. Mhm. day fekk Afrique li ci bari leewagul. Mhm. wax nga ko léegi ci wàllu noteel gi. Mhm. Euh, njëndum jaam yi. ceddo gi buur yi amul fenn fu mu sedde ndax bu la tubaab yi notul ceddo yi not la. def la jaam di la liggéeyloo doo sañ bañ ak yeneen ak yeneen mais askanu libu diggante boobu naka lañu ñu dundee affaire boobu avant ñu ñëw Dakar. jërëjëf mais balaa may ñëw ci tontu bi. Hmm. mu ñëw ci benn histoire bu ma Mbaye Diagne cëddee ba léegi nettali. pour wax mag ñi ni ñu jubóowoo naax euh, environnement bi nga xamante ne fa lañu doon dunde mu ne Abdou Khader pour nga xam mag ñi ñooy ñan. déglul ma lii mu ne mag bi dafa jóge toolam. bay na ba pare liggéey na. di ñibbi. wante ñoom seen nuyoo duñ ko woon def rek ax doomu aadama ni ñoom. suñu rombee garab gi dañuy nuyu garab gi wax ak moom. su ñu rombee xorondom bi dañuy nuyu xorondom yi wax ak ñoom. mu ne mag bi di dem noonu jant baa ngi soo. mu jékki-jékki benn picc ramatu ñëw tag ci mbaggu ndeyjooram. ne ko maam booy mu ne ko naam. mu ne ko ceeli bee de man lay rëbb. ngal la aar laata mu koy tontu ceeli bi ñëw taxaw ci beneen mbaggam ne ko maam booy mu ne ko naam mu ne ko picc bii dalaa war a reere te jant baa ngi so mu ne mag bi ne dënn ba si yàgg. mu ne roseet paaka bi ci pooj bi jonkoon tàllal tànk bi dagg ci poojam jox ceeli bi mu ne ko jërëjëf xamoon naa ne doo sama yaakaar. allahu bi ne ko jërëjëf xamoon naa ne doo tas sama yaakaar ñoom ñëpp ne fër naaw mu jëri tànkam ba àgg këram. Hmm. def la muy def tëdd ba mu yeewoo góom newatu fa. pour wax la. Mm-hmm. juboo gi ñu wax ne moom lañu juboo woon ak seen bopp juboo ko ak environnement bi. allahu akbar léegi foofu la buy jaar nag bi ñu ñëwee ba ba ba ba Jolof. Mm-hmm. buur buy noote lañ fa fekk. Mm-hmm. jamono dafa dox ba buur ba commencé di noot. ñu ne nooteel moo ñu taxoon a bàyyi Égypte ñëw fii. ci ay at yu bëri. nooteel gi tam tàmbali na nañ dem. bu ñu ñëwee ba Cap-Vert. li jar leeral foofu. mooy ne lébu yi soose yi lañ fi fekk. Ah, soose yi ñu fi jiitu la wuy léegi. Ah, ah. uh-huh. ñoom la fekk fii ci Ndakaaru soose yi dëkkee ko am seeni kilifa yu nit ñi xam seen tur. Hmm. fii ci Dakar fii ci Dakar. ngaa liggéey yàlla na ko yàlla yërëm. amiin ne jàngal na ma ne ma. Hmm. Abdou Khader xamal ne sax laata soose yi di ñëw. Hmm. am na juróom benn xeet yu leen fi jiitu. pour dire que li yàlla wax ne àddina bi maa ko moom. fu leen neex dem leen léegi lañ ko yàq rek. donc juróom benn xeet yu bokkul ak soose yi jaar nañu ndakaaru dem ba soose yi ñëw lébu yu ñëw fekk fi soose yi dégg naa itam ne dund nañu ak ñoom téeméeru at. Mm-hmm. ak soose yi ñu nekkandoo fi ñoom ñëpp. Mm-hmm. di dem ak a ñëw mais xam nga rek ñaari askan yu bokkul. Mm-hmm. bokkuñu aada bokkuñu gis-gis. dina am ay ay jàppante léeg-léeg. jàppante yooyu nag bu mu demee ba tar moo tax soose yi retiré wu dem Gàmbi dem Casamance. ñenn ñi des ak lébu yi ñu sanc nag. tuddee dëkk bi dëkk raw. dëkk Daara Salaam. Hmm. mooy dëkk raw di soo ko féeree ci wolof. dëkk raw Daara hmm, hmm, mooy këru jàmm. wala dëkku jàmm. ñoom ñu ne dëkk raw ku fi dëkk raw nga. raw nga ci fitna gi nga xamante ne moo daj réew mi. ci jëmmu jàmm jaayu jàmm ak xeex. bañ ko tuddee dëkk raw nag. ñu defar seen charte. ne buur bu mu fi am. ndax buur toujours buur ñuy tax a tax a daw. ñëpp ay nawle lañu ñu ne ah kay ñu ne kon lépp dañ koy péncoo képp ku fi dëkk am nga sañ-sañu wax sa xalaat lépp lu ñuy décider dañ ko waxtaane ba d'accord ci ñu ne waaw ñu sañc nag jaar nañu euh, Béerum Celaan jaar nañu mbi jëm Lebu jaar nañu euh, Tëngéej jaar nañu ñi mais soo bëggee wax yooyu yëpp day day day day day diis. day nañ ñëw. Hmm. bi ñu ñëwee ba mbu xeex fii ci boppi presqu'île du Cap-Vert bi. mbuxeex waaw dëkk bi gën a mag bi fi lébu yi njëkk a sanc mu ngi tudd mbuxeex. mbuxeex mbuxeex soo koy natt. Hmm. fi stade de l'amitié nekk tey. ak front de terre. Hmm. looloo doon mbuxeex. ndax mag ñi suñu doon dëkk. Hmm. dañuy xool ndox mi bu mu óor na fii ndox yomb na fi soo wax kay jot ndox ñu ne ah kay baax na. ñu xool gar gàncax gi. ne baax na mais nag dëkk bi dañ day nekk ci ci ci ci dune. pour que lépp luy lore luy ñëw. sentinelle yi mën ko séen. loolu taxu ñu san ñu tànn mu xeex dëkk fa. mu xeex euh, Matar Sy bi laay ndeysaan chef de penc guy salaan euh, nee na ma lébu yi def nañ fa téeméeru at ak juróom mu xeex soog a tas. foofu nag la intéressant parce que mu xeex ba mu tasee. ci la ñu wu. def ñetti groupe méngeen yi ndax coow moo fa am. ak ñàkk déggoo. coow ba nag mënuñu ko maîtriser ba mu laaj nag ñu séparé wu. ñenn ñi méngeen yi dem sañ ci yoof ñu ne wele méng moo njëkk a for géej. wele méng wele méng moo njëkk foor géej ba mu gisee géej gi mu ne foroo géej ba ñu bu xeex tasee ñu màng ñëw ba ci boori géej ga ñu ne ay ca leen yeew fii géej mu indi yoofu géej nañ yeew fii géej nañ dëkkee fii ci géej gi ci tefes gi ñoo ñëw sanc yoof beneen groupe bi dem ba Hann bel mhm. ñu sanc fa beeñ dëkk bu ñu naan beeñ ñetteelu groupe bi topp tefes gi dem ba fu ñu naan Sumbujun ñu sanc village bu ñu naan Sumbujun mhm. mu nekk ñetti dëkk li jar a leeral mooy yoof moo jur wakaam yoof moo jur ngor ñu te jugee yoof mhm. dem sanc wakaam ñu koy wax Aliya Jën Ndooy maamu jaraaf Youssou Ndoye bii tey Aliya Jën Ndooy moom moo sanc Wakaam sàmbeel yi ñëw sanc Ngor ñu ne Wakaam tur bi garab la woon bu ñu daan wax kaam ñu leen di oo waakaam nga Ngor ñoom ñoo gor te gore aussi moo leen taxoon a dem ñu tuddee dëkk ba Ngor àddina di dem di dox di dox di dox waa beeñ ak waa suma jun jubóowuñu mm-hmm. wante nag xuloo boo gis dina am fin mm-hmm. mu am jamono nag ñoom ñaar ñu juboo beeñ ak suma jun ñoom ñoo sañ ci fukki penc yeex ñaar tey ba beeñ ak sumb jun daje ci la ñu sañ ca penc yu njëkk ya ca Pointe de Dakar fa banque BCEAO nekk village bu fa gënoon a mag ci jamono ñu njëkk ko fa sañc mu ngi tuddoon Tani Géej tan ga géej Tali Géej ba tey soo demee rue ba traversé marché Kelmer ñu ngi koy tuddee rue de Tann di ku dëkk booba. Hmm. Tali Géej hmm. maam Baye Soogi Ndooy fa la dëkkoon fa la sancee jugee dem sance teeru Baye Soogi bii tey nekk ci ginnaaw pale hmm. fa pale ba nekk fa la doon béy moom Baye Soogi Ndooy. teeru Baye Soogi donc ci Tali Géej boobu nag la yeneen penc yi di juddu. penc yi du juddu penc yi du juddu du juddu ba tey ñu koy lim muy fukki penc ak ñaar muy collectivité Lébu de Dakar wante nag diggante ba ñu sancee tali ax mm. ak bu fukki penc ak ñaar di am lu bëri xew na fi soo buggee tam ñu xuus foofu. waaw aca <laughs> waaw xam naa Youssou Diouf ndeysaan mu may déglu. waaw mm. euh, moom ci sama ci sëriñ yi la bokk. waaw maam Birame tam mu may déglu mais ñoom ñëpp dinañ ñëw ci kanam incha allah. waaw ah, bisimilah ah, imam euh, wax nga waakaam. Mm-hmm. li tax ñu leen waakaam. waaw. wax nga ngor. Mm-hmm. li tax ñu tuddee ngor. Mm-hmm. wax nga itam ne euh, waakaam ñoo sànc yoof. Mm-hmm. yoofu moo sañ ca wakkaam yoofu moo mm-hmm. euh, ndax mën nga nu wax lu tax waa yoof waa waa wakkaam déplacé yoof mm-hmm. dem sañ dem dem sañ feneen beneen bi moo di euh, lan mooy définition lébu waaw ah, jërëjëf lu tax lan baatu lébu lan moo ko andi waaw jërëjëf jërëjëf euh, loolu am na solo trop imaam jërëjëf xam nga sancum dëkk ci taarix. Mhm. toujours nit ku am gis-gisu àddina bu mu bokkul ak ñi mu dëkkal. Mhm. moo tax nit sanc dëkk léegi xewee na. moo tax suñu sëriñ su baax si ñoom ñëpp dañ naan sanc nañu dëkk bi sanc dëkk bi sanc dëkk bi wala nga mer nit tooñ la tooñ gula boo mënul faj mu metti la nga ne xaaral ma dem euh, Aliou Diendooy coow la woon coow ba nga xamante ne jarul ñu dugg ci actuellement nii ci waxtaan bi fi mu toll mais. coow boobu dégg naa ne moo waral benn woyu taggaate ñu neen xànjur ndóoy ba réere gi guy soor bokkewu la xànjur ndóoy ba réere guy daam am na ñu ñuy taggee ndakaaru di leen taggee noonu man tagg de <laughs> euh, suñ la firilee tagg boobu nag di nga comprendre lan moo xewoon ba tax mais Aliou jëndooy ci ma Elhadj Ngalla Gueye li ma jàngal ba mu ñëw jarbaatam bu ñu naan njooñi géey la àndal ñëw sanca wakaam nekk fa nekk fa nekk fa jamono jooju matriarcat moo doon dox matriarcat bi moo tax ba mu génne àddina jarbaatam moo ko doon dugg ci diine gi te diine islam patriarcat la indi ba ñu duggee ci diine gi mu toxu dem ci patriarcat ñu coow la am ba tax euh, Aliya Jën jugee yoof ñëw wakaam ci coow loolu moo jug ñett jugee yoof tam dem sañ ci ngor waaw donc coowum bu xeex moo tas jur yoof coow am yoof jur wakaam jur ngor beeñ am sumbujun am mu am réeroo seen diggante mais dem jamono dem ba ñu dépassé réer googu daal di juboo sanc fukki pencax ñaari ñan ñoo dox jubóo gi waaw jubóo gi toujours mag yu baax ñoo ko dox ak itam àddina ci doxi na muy doxi léegi léeg dina dem ba saafara saafara xeex comme soo xoolee traite négrière xam nga nit ñi dañu soxla ku leen liggéeyal te amuñu machine ñu ñëw yi jënd ay nit ku ñuul di di jaay mais ñu dem ba borom xam-xam yi créer ay machines yu mën a taxaw fa nit ko taxawoon di ko def raw nam ko doon defee donc am na ñoo ne développement industriel sax moo fi jëlee jaayu jaam àddina suy dox xel yi di ubbeeku nit dañuy dem ba dépassé yu bëree bëri bëri mais le non lébu mm-hmm. dafa am importance mm-hmm. parce que wax yooyu yëpp indi non lébu am na ñu ne mu ko jógee ci luubu xale bu tëradi dañ naan xale bi dafa luubu muy un guerrier belliqueux dañu yore jikko junxóob xam nga junxóob soo demee ba napp ko soo ko jaayee doole mu bàyyi laax tànk bi dem ñu ne jikko boobu la lébu am moo tax tooguñu fenn am na ñu wax sax ne fii ñu nekk ci sowu jant dañu ñëw ba jàkkaar jàkkaarloo géej gi mais su doon géej bi heure bi fekk nañu génn Ndakaaru géej gee leen fi téye ñu tuddee foofu nag tànk donc indi nañu turu Ndakaaru ci dëkk raw indi turu ndakaaru turu lebu ci luubu mais am na ñu wax ne seen waxin tam dañuy léeb seen wax dañ koy léeb ku bokkul ci ñoom daanaka dañuy làkk olof te doo xam lu ñuy wax lan la ñu ne ñii de dañuy léeb am na ñu ne ci léebkat boobu fa turu lebu bi jugee dégg naa tam ci imam bu Moussa Samb mu ne lebukaay ba waaw ndax ndakaaru dafa naatoon ñu am géej gi di napp jën am tool yi di béy am jur gi ba biir Sénégal su ñu demoon ba euh, dëkk bi metti ñu bëri dañ doon ñëw fii Ndakaaru pour leb ñu ne lebukaay ba mais loolu mën na am mais tur la buy tof talu ci beneen tur mm-hmm. comme ni tubaab bi ñëw fii ne Mermoz ndax Mermoz dafa lab ci géej gi ñu tuddee bërëb boobu Mermoz lebuy ne fii mooy Mermoz ku mer muusal ah d' accord kon kon kon euh, benn tur nekk tudd Mermoz. waaw moo la moo laboon foofu. moo mu waaw moo laboon foofu ci avion temps ba avion di soog a judd. waaw am na avion yu bëri yu daanu ci géej gi. moom Mermoz dafa liggéey liggéey bu rëy ci suñu géej gii la avion daanu mu faatu fekk tubaab baa ngi fi. pour fàttaliku ko tubaab bi tuddee bërëb boobu Mermoz. Hmm. mais xam nga nit ku ñuul dafa yàgg moom boppam surtout mag ñi. waaw moo tax ba arab bi ñëwee ne. alifun hmm. baawun. taawun saawun ñu ne dañuy dugg ci diine wante duñ ko waxee ni ngeen koy waxee. waaw ñoom ñu ne lan. ba ba baajoor waaw taajoor ko seeni tur yëpp ful googu moo nekkoon ci mag mi ba sin mi waaw daa ay ay ndigal ay ndigal ak yooyu yëpp nu a jërëjëf jërëjëf am mu yaa biir yaa ka ceef gis nga yan ra donc fulla boobu moo tax ba ko tubaab bi tuddee foofu Mermoz ñoom mag ñi ñu ne fii du Mermoz de fii mooy mer muus waaw mer ba bare muus ku mer muusal soo meree sa xel dem di nga def musiba hmm. li turi mer muus bi hmm. mooy ne foofu guy biraago sàmm mbeex méng la woon si cosaan ak ah, guye fa ne woon ñu dippee ko Biraga Samb meex meng muy jaraaf bu am fula bu nekkoon Dakar. Hmm. te foofa waa fukki penceex ñaar. ax waa tànk mooy ngor wakaam yoof su ñu amee problème bu rëy bu soxal ndakaaru fa la ñu daan daje. waa tànk dañuy dox ñëw waa ndakaaru dox ñëw ñu daje fa waxtaanee problème bi bu juboo ci kàddu ñu wax ki bu mu xóot ñu ne tuf ku nekk tufli ñu tufli nu fay wax bi yem. na fi wax bi yem waaw. muy giir guy biraago te soo seetalee. taarix boobu guy biraago fu mu ne foofu. mooy Mermoz Tour de l'Oeuf waaw waaw foofu. Hmm. donc soo xoolee da ngay gis ne mag ñi fulla boobu la amoon donc lébu bi indi na luubu indi na léebu. Hmm. yooyu yëpp dafay ñëw. indi lebukaay. indi hmm. ndakaaru indi na dëkk raw. indi na daxaar ga. ñu ne Dakar ga mu nga woon bunti Ndakaaru mbi jëm bi jëm bi jëm mooy fan bi jëm lébu ci entrée entrée presqu'île du cap léegi si Thiès la bokk wante ci Cap-Vert la bokkoon ci cosaan moo tax lébu yi di xeex ne découpage administratif bi ñu def ba wàññi Cap-Vert hmm. nañ ko nañ ko nañ ko delloowaat fa mu nekkoon ne cap ëmb la mu nekk hmm. la mu doon lépp am na ñu ne daxaar ga loon foofu daxaar ga ma nga woon ba ima bese yaawoo ci tund ma hmm. timpom bu bees fala la daqaar ga ne woon nekk nattuwaay ci gaal yenn biir géej ndax garab gu kowee gaal yi ñibbi si nañ ko doon nattoo symbole bi pour xool fooy te fooy teere waaw est donc nattuwaay la woon ci mag ñi dëgg la euh, jërëjëf euh, Abdou Khadre wax yàlla euh, ni nga ni nga ñu décrire affaire bi wane na ni comprendre nga dëkk dëkk bi te tamit da ngay xam sa cosaan mhm. xamit foo loo doon dana tax itam nga gën a xam sa bopp. tout le temps nga mën a pees sa bopp. Mm-hmm. mais li ma gën jàpp ci li nga wax nii léegi rek nga wax ko ci wàllu Mermoz. Mm-hmm. maanaam nga xamante ne mooy tudde lëf. Mm-hmm. Euh, maa ngi bu mosaan wax li ñuy wax dañuy wax mu xóot ku ko ku ne tëf li ñu ne kon na fi wax bi yam waaw loolu bokk na ci seen i valeur. parce que tamit boo gisee léegi ñu ñu pénétrer ñu. ba pénétrer ñu léegi làkk wi ni làkk mënoo ko làkk mu jeex te làkkoo ci làkku jaambur. mënuloo signé dara te signé ko ci signature jaamur. Mhm. amuloo code amuñu benn waxtaan boo xamante ni ñun mën nañ ko waxtaan ba ba tey bu njëkk euh, lël da daan am nga dugg lël xam waxu lël. Mhm. ba fi ne armée bi fi ne ni ñoom ñoo dese loolu ci valeur. Mhm. armée bi am nañu seen waxi bopp. am nañu seen la am nañu seen code. am nañu seen lépp. loolu kenn infiltré wu leen ndax ñoom ñoo moom seen bopp. mais daara ji commencé nañ ko yàq. lël commencé na yàqu. Mm-hmm. aada yi mag ñi commencé na yàqu moo tax léegi si neen daan mënuñoo fexe ba génn ci loxo. Mm-hmm. mën nañu coow rek pët pët pët pët mais lu mu yàggee ci loxo rek la ñuy mën la ñuy nekk. donc kon mag ñi loolu seen seen secret la woon. Mm-hmm. seen seen seen seen seen ndam la woon imam. wax na euh, gay wax na bu am solo. benn sacrifice bu métti métti. dama touché. picc bi mu dalee ci mbaggu mbaggu mbokk euh, góor gi. waaw tan mi ñëw daal si mbaggam benn bi. tan mi wax dëgg picc mi wax dëgg. wallaahi muy ñaari dëgg yu tase. Mm-hmm. ki bëgg naa sowe ki bëgg naa lekk. Mm-hmm. mu préféré ñoom ñëpp ñu am mm-hmm. mu def sacrifice. dagg ci boppam. kële lekk kële sowe. loo koy déggee mooy ku jiite mbooloo. bu ñu déggoowul fexeel bay da def sacrifice ba ku nekk la la mu bëgg la muy soow. nga faj ko. personnalité bu mat sëkk. oustaz Alioune. Mhm. li moo tax waxtaan ak borom xam-xam neex. dëgg la xam nga wax bi maa ko jëlee ci mbay jaan cëddeem. Mhm. wax ko fii. Mhm. moom ndekete imaam. gis na ci wax bi lu ma gisul man. allahu akbar. waaw wallaahi war nga ma ci wax ji. yàgg naa ko nekk nettali lu ma gisul. waaw njiit. bu am contentieux boo war a jugé. te ñoom ñaar dañu nekk ci xuloo yow nga saafara ko bu ko nekk kontaan. Mhm. jërëjëf jërëjëf. Eh, barakallah <laughs> yaa ngi koy mën a am nag ci. jërëjëf tam nga nga maye sa bopp wala nga nga sacrifier sa bopp. Mhm. ndax góor gi bi mu xamee ni mboole mboole nga wax de. Mhm. wala wala. ramantu waaw picc ramantu picc ramantu nga picc ndaw yooyu te kii eh, noonu nga ko waxee nga xam ni dafa ñëw donc ko maam kii man na bugg a lekk ma bëgg nga suturaa ma làq ma kii ni que man de dama war a reer te jënd baa ngi so mm-hmm. ma bëggoon daal xewlu mm-hmm. góor gi xam ni sàggi sag ak wuññi sutura mm-hmm. ni ko lekkal bi ñu noonu du woon ndam te poojam bii mu tax gar mi dafa am solo wallaahi gar loolu nag gar dafay laaj ni il faut nga am jikkoy gar mi jikkoy sang moo la mën a may loolu da dagg ci sa pooj lu too lu ko suur ni ko am. Mhm. lekkal te bàyyi jaamul mu dem. c'est très important. jërëjëf am na mu xëy pooj bu wér. mu xëy pooj bu wér. muy tontu yàlla. waaw yàlla wa ma anfaqtum min xayrin. fa yuxlifuhu jërëjëf. yàlla yow lépp loo sacrifié ngir man. maa koy remplacé. macha allah macha allah. barakallah jërëjëf jërëjëf Abdou Khadre am na solo yaa ngi wax nag fu am solo. Mhm. ci ci di ñu jéem a euh, fukki penc ñaar. Mhm. fi Ndakaaru yem man maa ngi ciy dugg ay mbijjam ak. ay yu bare yoo xamante xaw ma ko woon ndax man man man dooli Ndakaaru laa <laughs> <laughs> man ma ngi dëkk Kajoor waaye dafay am importance trop ñu mën a relancer waat suñuy valeur feeñalaat suñuy mag feeñalaat suñuy mag c'est très important mm-hmm. ndax góor gi dafa ñëw ni dama leen soxla yéen xale yi xale yépp ñoom mu leen dama bëgg ngeen rey seen baay yi ak seen maam yi ma dool leen wax li ma leen di doyee mm-hmm. xale yu dof yëpp dem rey seen i wayjur mm-hmm. mu des benn xale bu yew ñëw moom daal di làq papaam une semaine góor gi woowaat leen buur bi woowaat leen ni leen ndax def ngeen li ma leen wax ñu ni waaw. ñu mhm. leen léegi dama bëgg ngeen tabaxal ma palais ba mu laal asamaan. Mhm. bi mu ñëwee daal ne papa ñun day sunu buur li mu ñu sant xamoon nu ñu def ba def ko. Mhm. mu ne lu leen sant mu ni leen mu ni leen dañu nañ tabax benn palais ba mu laal asamaan si. mu ne ko bu ngeen demee nee leen ko na rëdd plan bi génne poto yi <laughs> ngeen tàmbali. mu ñëw góor góos bi ne ko ah ñun yow lañ doon xaar sa ndigal rek la déglu rëddal ñu plan bi rek génnee poto yi ñu ñu commencé liggéey. <laughs> buur bi ni teg bàyyi mu ne am na ko rayul bàyyam ci yéen. <laughs> est na ko rayul papam man man naa ba ci réew. moo tax ma man du ma d'accord mukk ñuy jël suñu mag di suufeel. Mm-hmm. wala di di yëkkati ñeneen bàyyi suñu mag ñi. parce que mm-hmm. ñooñu ñooñu yu meññi te ñàkkuñu jom ñàkkuñu xam-xam ñàkkuñu valeur. ba bu bu tax man du ñu leen roy. ki nga oustaz. Mhm. beneen histoire bu gàtt rek. Mhm. pour nga xam pour ñu gën a xam mag ñi. Mhm. Serigne Ndakaaru Elimane Diol. waaw mooy ñeenteelu Serigne Ndakaaru. ndax Jal Diop moo falu. après ñu noonu Bataar Diop ñëw. après Imam Ratib. assuré intérim bi. Elimane Diol ñëw. Elimane Diol. moo accueillir la première mission katolik bi ñu samp Dakar. si maa ngi doon ñëw sa waaw dem waa mais demal. ñu teg ko fii hôtel de ville nekk. mooy mairie Dakar. waaw ba monseigneur Benoît Truffet di ñëw. Hmm. abbé Boilat moo ko nettali. Hmm. mu ne téeméeri nënd. Hmm. ñoo teeru abbé bi. ba l'abbé bi bi ñëwee. waxtaan ak ay ñoñom daf leen ne dëkk bii de nit ñi teeralee ax nit ñu teeralee ñoom ñëpp dinañu tuub mu toog fi at yu bëri kenn tuubul moom moo témoigné mu ne askan a ngi nii ba nga xamante ne xamuñu fenn. xamuñu sàcc lu ñu la wax dëgg la ñu fonk seen waajur lañu ñu fonk jigéen lañu. Mm-hmm. ñii daal ñoo wuteex tubaab ya ca tugal. loolu la àbb bi àbb bi seede ci askanu lébu. moom la seede ci ñoom. waaw te. Mm-hmm. yaakaaroon na ne su fi agsi rek ak teraanga ba ubbeeku bi. ñëppay tuub kenn tuubul mu ñëw waxtaan wax Ilimane Diol. Mm-hmm. ne ko waa man bi may ñëw. ak ni ngeen ma teeroo. foogoon naa yéen ñëpp da ngeen nangu sama diine. ñu ne ko ñun alxuraan mooy suñu mooy suñu téere mm. rasulullah mooy suñu yonent sallallahu alayhi mu ne ko waaw teral gi ngeen ma teral nag lu ko waral mu ne ko ñoo bokk yonent yàlla isaa ndax suñu téere wax nañu kan mooy isaa te bi ngay ñëw mm. dañu ne taalibe yonent yàlla isaa mooy ñëw mu ne ko à travers toi yàlla isaa lañ doon teral labbi bi ne est yi di di waxu ki annoncé Isa. Ah. muy si Muhammad sallam. wallaahi mu ne ku gëbi yàlla gëm Mouhamed na nga teral sagan gan. Mhm. jërëjëf. macha allah jërëjëf euh, léegi daal vraiment euh, li nga ci tudd yëpp. Mhm. Euh, ak tu nombre rek laa ci dégg. Mhm. ak tu ngarme ak njulit rek laa gisagum ci li nga ci jot a wax. léegi léegi léegi ba léegi yaa ngi ñu yaa ngi ci installation lébu yi ci ndakaaru ak euh, moom gi ñu moom seen bopp. Mhm. naka la defoon ak ñoom ceddo yi ndax xam nga amoon fa ay dameel ak ay buur ak yu bëri yoo xam ne amoon na fi. mais dafa mel ni noteel ak njaam ak yu bari moom euh, dugguloon fii. waaw xeex nañu xam nga nag fii euh, Kayoor. Mhm. mujj xar. ba moom ba kii dañ ko geñu mu nekk benn dëkk Kajoor Waalo Jolof yëpp dekk le Grand Kayoor. yooyu benn benn kii la woon. waaw. loolu tax sax làkku olof Sénégal yëpp di ko làkk waaw parce que. dañ ko gañoo mu nekk benn. Kayoor Bawol Siin Saalum Waalo Bundu lépp nekk benn benn kii benn royaume mais ba mu demee ba xar Kayoor moom boppam ba Cap Manuel si Dakaaru jeexee. lépp si Kayoor la bokkoon. waaw bi li muy ñëwee Kayoor ilif ndakaaru ñuy fay lemp wante ay xeex yu bari am na fi nag xanaa déggoo xare Pikine ba. ñooñu déggoo xare xare xare xare Bargny ba ak jaraaf Baalo ba Diop. lan moo tax Jal Diop ñu fal ko Serigne Dakar dafa xare. si lañ tudd si lañ tudd la la la de Bargny. waaw la résistance de Bargny ak jaraaf Baalo ba Diop. ba Golingom. Hmm. ba muy dem ca xare ba xare ba metti lool mu ay soxnaam yëpp di toog mu ne fireeku leen teññ ma naa teewee sama dëj balaa maa dee. ñu dëj ko mu soog a dem xare ba. ah. <laughs> waaw waaw Golingo ma def loolu. Golingo bu bu bari ñi. bu bari ñi si jamono jaraaf Balowa jóg donc lébu yi xeex nañu ay xeex yu bëri. Hmm. ba en 1790 la Jal Diop ànd ak ma Pod Meng ak mag ñi. Hmm. ñu xeex xeex bu mujj ba ñu xeex ak Kayoor. Kayoor may leen indépendance en 1790 la Ndakaaru am indépendance am ñu fal premier sëriñ Ndakaaru muy Jal jóg doomi Massamba Kokki jóob ba jógee Kayoor au milieu di dix-huitième siècle foofu nag fa ñu war a dem. ci wax ca mag ña. moo tax ma bëgg ñu tàmbalee ko ci Massamba Kokki jóob masamba Kokki Diop dama dama amee. Euh, euh, suñ ci àggee. mottali ma mottali ma communauté de Lébu léegi nag xeex boobu ngeen xeexoon pour moom seen bopp. waaw léegi pour fukki pencee ñaari ñoo doon xoo xeex pour moom maanaam turu Lébu bi. nag Dakar yëpp ñoo xeex. waaw ah. ndax am na xare jàmboor. jàmboor. xare jàmboor yoof kese moo ko xeex mooy jàmboor jàmboor mooy luy jàmboor jàmboor nee nañu vice roi la woon ca Kayoor hmm. ñenn ñi ñu ngi doon ooyee jàmboor tam soldaar ya doon xeexal euh, damel du Kayoor hmm. mais nit ñi vice roi la woon ñu ne soldaar yi ñoo tuddoon jàmboor xëy na loolu yëpp am na wante dafa am ñenn ñi nee nañu ay jigéen yu dawee Kayoor ñëw làqatu yoof ñu jox leen kàddu fàtt leen damel yónnee ne ñi rëcc ndakaaru lañ dem ndax foofu la dëkk raw mu topp seen tànk ba yoof ne jox leen ma xale jigéen ñi waaye yoof bañ ne ñi nooteel ak njaam la ñu bañ ñu ñëw ñu fat leen jox leen suñu kàddu te ki góor su joxee kàddu dootu ko nangu mu jaral leen nag ñu xare jàkkaarloo kayoor kayoor am armée bu mat sëkk am ay fantasin am lépp yoof amuñu armée wante nag maam njaree nga fa woon kuy maam Njare mooy tuuru yoof ah. moo tax suñ koy tuurul. waaw ñu ne jiin leen njare jiin leen njare yoo fa dàq jàmboor jiin leen njare ndax dañu leen wax ñoom maam ñoom maam ne leen amu leen gànnaay wante xeex leen ñu ngi seen wet soo demee ci yenn mag yi ñu lay nettali xeex bi mm-hmm. ñu ne am na benn waxtu ci xeex bi ñoom waa yoof dañu nekk ci bëccëg ñeene ci guddi <laughs> am na benn instant ci xeex bi yàmb yi dañu ñëw bokk ci xeex bi dugg ci bakkanu fas yeex nopp yi nit mënul xeexaax yàmb ñu daw am na ñu wax ne ci mag ña nekkoon ca xare ba ci ni ñu koy nettalee ni lañ doon def seen baaraam ba lu fetal yi di génn dañ ciy nettali lu bari am na ñu nettali ba nettali na jant bi sono fenkaat mujj gi waa kay war daw lébu yi topp ñu dem ba fële ñu naan kañaak ñu samp yàpp. kañaak mooy fan. waaw ci kaw la nekk ci biir ci biir euh, Cap Vert kaw. waaw dañ leen dàq ba ñoom ñu war a génn Cap nag dellu dellu dellu fu ñu jóge woon ñu samp yàpp bi nag daan ne fii la yoof fi yem ñu ne ci xeex boobu la damel gëj a laaj impôt waa yoof waa yoof nag am indépendance mais bu ñu amee indépendance ñu ne su doon ñu ni neen du ñu am indépendance bi. wante am na ku ñu jàppale muy maam njare ñu fental ko wéy nag jin leen njare jin leen njare yoofa dàq jàmboor jin leen njare looloo waral ba tey jii saa yoo déggee ne waa yoof ñu ngi tuuru tuuru maam njare loolu lañuy ñuy fàttaliku macha allah waaw loolu nett li mag ñi la dëgg la euh, am na yeneen xeex nag boobu xeexu yoof la am na xeexu ñi moom laa la wax euh, sànq euh, fi ki ñuy wax kaam ménga soxna la woon kaam moo waral sàngal kaam euh, euh, euh, mag ñi suñ daan xare mag bu romb yenn at yi du ci bokk jigéen du ci bokk xale du ci bokk dañ leen def ci gaal yóbbu leen ci île ya kaam nekk na nag kayoor ñëw na ba xeex bi war a ñëw moom pàppam feebar mënul bokk ci xeex bi mu ne rus na bari ñi xeex xeex bu day nii te moom du ci bokk seen famille duñ ci am représentant mu ñëw ne dafay soli soldat pour xeex ñu ne ko fii jigéen du fi xeex demal mais mu dellu siwaat nga xeex bi daal foog mu bokk ci parce que ruus na ñu xeex xeex bu day noonu te waa këram ëllëg suñ koy nettali duñ ci tudd kenn. mu dem ba convaincre mag ñi ñu ne ko aywa mais mu woon leen jàmbaar bu yem ñëpp ba ñu xeexee ba gañ a xeex bi ba dàq soldat yi Kajoor ñuy daw kaam topp ci. moom so waaw si ñi doon dàq nekk ci fasam benn soldat gestu dóor ko bal mu daanu. xam nga rek jigéen. mais na mu daanoo rafetul woon jarax balo bi yuuxu. ne sàngaleen kaam. ci sàngaleen ko sutura. ndeysaan. waaw ñu arrêté lépp taxaw. Mm-hmm. muur ko. Mm-hmm. na ko diine bëggee. Mm-hmm. defar ko ba mu jekk. ñu ne fii mooy sàngal kaam. foofu la daanoo. waaw looloo indi. muy sàngal kaam turu sàngal kaam. Oh, docteur Aliou nga jege xam nga yow xamu woon loolu. beneen théorie. <laughs> Mm-hmm. macha allah am histoire moom. dafay day de relater lu bëree bëri. Mm-hmm. wax nañu ne euh, ba ku amoon doole. Mm-hmm. moo sampoon foofu. waaw bu fi samee. foofu nag. Euh, ku fay jaar te am alal. mu dogale ko nag sàngal kam maanaam sa yi mhm. na nga sàng sama soxna si mhm. ndax nga dëgg la soxna si kam la tuddoon mhm. mu ju enfin da ko judd ko nag sàngal kam sàngal kam kooku la waaw version la mais version yëpp dañuy daje dañuy daje rek am na dex ba fa ne woon benn déeg benn rivière ñu ne dafa mel ni dex ga la jaraaf baaloo ba ne woon sàngaleen kam mii daanu ci fasam te tëraay bi jekkul suuf si daf ko wuyu ba suuf si di ngelaw li su ëppee suuf si dem ba muur dex gi dex gi tam kaam la tuddoon ñu ne sàng nañu kaam bu jigéen bi wante suuf si dégg na ndigalu jarax baaloo ba jóob ba sàng kaam gi kooku eh, kooku amoon jigéenam aussi ñëw même chose moom jël tour bi dippee ko utiliser ko pour dire que histoire nu muy doxee version yi mën nañu dox ba jamono version yëpp daje mm-hmm. comme ni ma la ko waxee rek mm-hmm. Mermoz ak Mermoz mm-hmm. xam nga ñaari nit mënuñu merante ki naan non non mermoos la ki naan de déedéet du mermoos mermuus la moo gën a yenu maanaam c'est ñaari yëpp nag dañuy daje hmm. jërëjëf jërëjëf imaam sëñ Mansour si yenn yàlla dara ko leer dana xam ne bu bu bu aw li ñu ko expliqué ni ñu nettalee hmm. ku dëkk Dakar ki fi gën a neex mooy di mer muus ndax boo mer da ngay muus. jërëjëf <laughs> jërëjëf ak ak ak jàmm gën. ak jàmm da am jàmm gën. wallaahi macha allah macha allah. xaar yàlla xanaa xaar yëpp ñu am solo xaar yàlla goreeg ngorog. yooyu yooyu yëpp am na solo mais euh, léegi léegi bala nga ñëw ci jël job moom. Mm-hmm. léegi ci làkk wolof bi nga tudd noonu mais mm-hmm. wolof dama dégg moom wolof daf man daal wolof xam naa ne ku muus la. Mm-hmm. ndax wolof moom garabi wolof. weeru wolof ginaari wolof moom daal lu ñu rey wolof moom ko. Mhm. wolof mooy kan moom. xam nga wolof. Hmm. dañu ne ci askan bi mujjee juddu ci sowu jant bi ci la bokk. Hmm. waaw ci askan bi mujjee juddu la parce que daje la soo xoolee làkk bi da nga ciy fekk làkk làkk arabe fekk ci espagnol fekk ci tubaab fekk ci anglais fekk ci pël. ba pare mu nekk askan bu yeneen askan yi mu bokkal dëkk bi yëpp dañ ko xaw a ragal parce que dafa mel nii day day da lay da lay fàttaloo sa bopp. waaw ah, day doon sa ah, ba da ngay doon wolof su bambara bi ñëwee su yàggee rek doon wolof pël bi su ñëwee su yàggee doon wolof moo xool moo see tax pël yi dese seen bopp ndax bambara yi dese seen bopp. Ah. dañ leen di ragal même suñu dëkkeex ñoom dañ leen di moytu parce que dañuy bañ seen njaboot xooyeeku. waaw mu ngay xalpulaar yu bëri sax du ñoom bëgg sax wax wax. Euh, ak euh, wolof euh, seen doom yi. Uh-huh. il ñu jàngal leen seen làkk jàngal seen bopp ba ñu moom seen bopp. soo ko toppee nag. Hmm. ñu ne la njaajaa njaay ba nga xamante ne moo sos loolu yëpp ànd may sa wàll jot na ma ko newoon njaajaanoo. Hmm. yow de kéemaan nga. Hmm. <laughs> njaajaa njaay ci boppam. ñu ne Abu Dardaay moo ko jur. Abu Darda waaw. la si yonent yàlla Muhammad. waa di sax mooy yéen maa maa ko doon démb. Fatoumata Sall mooy yaayam. ñu ne baayam doon araab bu weex tàll am na ñu weddi nag boobu ne Aboubacar séeréer la woon mooy baayam mais werante la mais ñaajaa njaay ci boppam Fuuta la jugee ñëw waalo ñu adopté ko mu jugee waalo ñëw jolof doon njaajaa njaay mais njaajaa njaay mooy lan luy njaajaa njaay man def ko du njaajaan daal wala euh, en fait moom ci boppam fa mu jógee ax mer ba mu meroon ba soobu ci dex gi ba teer ci defi si dex gi ba àtte fa àtte ba mu fa ñëw ñu jàpp ko yóbbu ko dëkk bu mu bañ a wax ba waa waalo gisee ne kii dafa kéemaane. Hmm. ci ne mu mel ci der bi ci karaw gi ak xereñ gi mu xereñ ba xale ya doon xeex ci tefesu dex gi ndax xam ñu nu ñuy àtte woo mu àtte leen ñu ne kii mooy kan te nanguwul wax boppam xiifa tax mu ko abdu moo tax woykat ba ne njaajaan njaay na ngeen booy la àddee woon ndax ñëw na fa ay fan nangul wax. na ngeen booy. waaw ñu ne fa la àddoo la njëkk a waxee. parce que dafa ñëw rek muuma ne dootul wax ndax dañ ko jàpp ndaw sa nekkoon ak moom nag yor ko nekk ndaw su xereñ mu jël cinam war ko teg ci wos wi mm-hmm. mais mu koy wosee ñaari xeer saa yu tegee ñaari xeer yi teg cun bi rek mm-hmm. cin bi tuuru njaajaan njaay xiif bëgg lekk te ndaw si saa yu tegee cin bi rek cin bi tuuru mu ne ko wos ñett mm-hmm. wos <laughs> ñett soo bañee cin bi daanu rek ndaw si oote. ne kaay leen àdduna àdduna àdduna. mais ñoom it ñu xam ne am na secret bi nekk ci mbir mi. Mhm. mbay sa wàllu jonn lañu dañu seeti. mu ne leen jaajaanoo buñ ko nettalee yëpp taarix bi. ndax na mu demee. Mhm. mu ne leen keeku kéemaan la. moo waral turu njaajaat njaay bi effectivement. kéemaan nga may sa yàlla jot na waxoon ma nga ca moom. ma nga ca moom mais ci li ngay wax nii rek maa ngi dégg nga tudd waalo di tudd côté tàkkal dex gi jëm noonu mais ci côté Saalum ak yooyu boor yooyu moom ñoom euh, lébu yamuñu fa tànkale. Euh, Saalum leeru ma nag leeru ma fi ñu jaar daal dégguma ci siin Saalum mais xam naa ne ñoom ak séeréeru Cees yi jaxasoo nañu bu baax a baax. mooy noon yi. waaw séeréer noonu yi. waaw te ñoom ñëpp nag soo seetee mag ñëpp hmm. waalo la jóge moo tax béykat bi nan la waalo réew la woon. waaw Sénégal ku fi baax koo topp mu ñibbi waalo. parce que ba arab yi ñëwee di ñëw. Hmm. di jàpp ay jaam. Hmm. ci la ñu dawee foofu ñoom ñëpp ñëw donc soo société ñoo jigéendoo Égypte ba agsi fii hmm. bu ñu ñëwee nit ci booru dex lay dëkk dëkk ci booru dex gi mais ba ñu demee ba dex gi bëri fitna ak ay jàppakatu jaam ñu leen doon ooyee njàppaan si la ñu bëri nag bañ ak ñi nga xam ne aussi bëgguñu woon diine gu bees gi. Mm-hmm. parce que dañ ko doon mettre en rapport ak jàppkatu jaam yi. Mm-hmm. su doon dañuy ci tuubal nit ñi kese mu baax. mais da xam nga rek indi lu baax ku ne. Mm-hmm. am na ku bon ku topp sa gannaaw. waaw ku baax ku ne. di jàpp di jaay am na ku bon ku nekk sa wet. te moo yàq sa liggéey souvent. di jàpp jaay rek si la ñu bëri daw. moo tax foofa daje woon nañ fa te bokk nañ fa lu bëri. loolu sax moo tax bi nga ni ñoo ne si topp topp tefes gi. am ci d'après histoire. tudde leen. Euh, walla dex waaw walla walla dex ndax ni ñu nekk ci rivage bi tout à fait xam nga si wolof wàll mooy côté coté dëgg la ci dëgg walla dex am na ci weer histoire lu bind loolu tout à fait bind nañ ko moo indi turu moo indi turu waalo bi oh moo indi tam turu wolof bi moo indi waalo waalo gi ci wàll ga la ñu dëkk ndax dex gi ñaari kii la xam nga soo bëggee xam wàll gi Abdoulaye Wade mos naa ko dégg ndeysaan xam moom ko ku xereñ la mu koy expliqué mu ne suñu la waxee wàllaa walaatu diwlin luy walaatu diwlin ñu ne wàllu diwlin mooy genn wàllu liitar mooy walla nga jël genn wàll teg fee te genn wàll bi nekk wàll la tudd mais genn wàll googu soo ko xaajaatee ñu ne wàllaat ah. wàll nañ ko une deuxième fois kon turi wàll bi day indi tefes gi mais ñi nga xamante ne ñoo law ñëw ba ci tefesu géej gi nag ñu wuddeel ñu tuddee moo indi wolof waa laf ñoo dëkk ci laf gi ci tefesu géej gi waalo ñoo dëkk ci tefesu dex gi ña ca ña nekk fa dex ga ak géej ga daje ñu ne leen waa ndar géej ñu ne leen ndar géej gi ndax dex geex géej gi nag daje nañu foofu mm-hmm. séq leen waaw waa ndar géej donc am nañu ko mais yooyu yëpp ay version la ay version la nga xam ne boroom xel mm-hmm. su ko waxee mm-hmm. Euh, borom xel ni moom dina ko mën a nangu. loolu yaa ngi yaa ngi takk yaa ngi takk euh, date bi ci année bi quoi ay ay quatre mille huit cent la wala. année ban bile bu ñëwee fii. Euh, ci bi ñu moom seen bopp di am seen làkk bopp ak yooyu. olof yi waaw. ndaxte su dee jël nañu njaajaan njaay. Hmm. def naa mille deux cent vingt deux mille deux cent vingt deux su ma juumul hmm. ci la geño dëkk yooyu yëpp pour le Grand Jolof. Hmm. jolof ku mag gi fa la sosoo. en 1222. soo te soo xoolee. Mm-hmm. suñ lay nettali taarixam euh, soo suñ lañ koy nettali. Mm-hmm. yow da ngay xeeb sa bopp. xam nga ñun dañ ne ñun ñoo civilisé. Mm-hmm. mag ñu ñoo suwaasoo mais suñ lay nettali la xewoon ci jamono boobu. ah na mu def. ba créer fédération bu day noona te bal tàkkul suñu fédération Mali jii rek. ay académiciens ñoo ko géré woon Senghor Modou Ba mu Mamadou Dia amul at mu tas Ndiaye ak jël réew yooyu yëpp ci Sénégal géño leen def ko benn empire te bal tàkkul ñëpp d' accord cest à dañu waxtaan ba d' accord ne nii lañ ko war a defee kon ñooñu fi seen xereñteef àgg mënoo ko comprendre jeux olympiques yi ñuy wax ni tey tubaab yi di ko organiser ñu ñuy dem ci télé yi di seetaan ay Jeux olympiques la doon organiser jamono yooyu xam nga ko tuddee woon. gàmmu. gàmmu gàmmu. xanaa boog la ñu leen xam ci gàmmu. gàmmu waaw xam nga ñooñu ko dañ ko dañ ko dañ ko arabal. lëkkale ko ak diine est-ce que gàmmuwul euh, waxu waxu arab la. baat bi olof la de du arab. ñu bëri soonee nee gàmmu ñu foog ne arab la. du jaraafu mbot. Mhm. suy organiser ndaw rab bi xam nga nu muy wax. Hmm. dañu naan ñu ngi dem ca gàmmu mbot ga. mooy ndaw rab bi. ndaw gàmmu mooy daje bi gën a rëy ci at mi ca dëkk ba. boobu moo daan gi gàmm ko ci ñaaw dee. waaw gii gàmm ku ci ñaaw dee. Hmm. Hmm. te ku ci rafet maa la jur ci sama biir. nit ñi di reetaan xam nga mooy lan. waaw. <laughs> non dañu fàtte suñu bopp dañu xooyeeku. Ah, c'est vrai. <laughs> dañu xooyeeku xam nga gàmmu. Hmm. rôle mooy de organiser faire le bilan comportemental de la communauté. suñu dundee ba at bi jeex ñu ne nañ dajee nag ana kan moo fi def lu rafet sargal la wóy la tatagal la ana kan moo fi def lu ñaaw moo tax mu ne gi gàmm ku fi ñaaw dee ku fi ñaaw tey nga dee mm-hmm. ku def lu ñaaw ci at bi tey dinañ la xaxar dinañ la xas ba ëllëg kenn leen du ñamati def lu ñaaw ku fi rafet nag ñu ne ko fi rafet na sa xel dal dinaa la jàppee comme doom bi ma jur ci sama biir donc si gàmmu jotee hmm. dañuy def le bilan comportemental de la collectivité lébu hmm. lu rafet ñu woy ko siiwal ko hmm. fi bon ñu xarab ko suul ko macha allah jërëjëf léegi nag euh, ñu xaw a jëkkande waxtu yu tuuti léegi nag euh, nga ñëwal ma nag ci Samba Kokki moom maanaam euh, naka lan mooy liaison Lebu yi ak waa Kokki yi waaw mais euh, je ne sais pas nga baal ma. waaw comme que am na ñu ñuy xaar. waaw mooy Youssou Diouf. waaw <laughs> ak Birama Gueye. waaw léegi mën nga tàmbalee ñoom. waaw ñu wax ci mag yi ñu xam après ñu àgg li wala. pour ñu libérer leen wala. waaw ñoom ñu ngi déglu. ah ñu ngi déglu ñoom ñoom ñu ngi ñu ngi lay mutaaba ñu ngi lay topp bu baax a baax. Uh-huh. donc donc léegi dama bëgg yow nga dugg foofu. Uh-huh. su defee suñu tëggee xabaar yi nag ñoom ma door leen jël. d'accord waaw waaw léegi ñoom dégg nañ la. Euh, xam nga bi ñuy euh, sancee Ndakaaru mm. tuddee ko dëkk raw. Mhm, dëkk dañu lancer un message. maanaam xibaar bi. dafa siiw réew mi yëpp jot ko. ñu ne am na dëkk bu nekk ci sowu jant. mu ngi tudd dëkk raw. foofu amul buur ñëpp a yem. amul xeet amul askan. man leen Mbaye Diagne mais lañ mooy lébu kon mu jox ma beneen prix mu ne ma jalaaf faara furi ay sa pay dañ ko laaj ne ko jaraaf lan la lan la di lébu mu ne ku bëtt àllub kaañ ba agsi Ndakaaru nangu charte yi mag yi teg lébu nga donc kàddu boobu bu mu siiwee moo tax jamono jooju ku am lu la naqari fa nga dëkk rek ndakaaru nga ñëw séeréer ñëw na tukulóor ñëw la ku ne ñëw nga ku ñëw ñu adopté la may la jabar daggal la suuf looloo dal ma Masamba Kokki Jóob Masamba Kokki ñu ne moom mooy Barguet Guet province la woon ca Kayoor géej googu moom moo fa doon kilifa wala ci kilifa yi fa war fanu la bokk. waaw léegi léegi léegi euh, Birama. waaw moom comme mi ngi ci ligne bi. Mhm. kon tey ñu ko jël. waaw. léegi nañ ko jël kon. Euh, salaamaaleykum Birama. aleykum salaam. waaw kay Guèye. Guèye Guèye. Euh, sant bi. Mbay la. Mbay Mbay Mbay Mbay. du lay ziar bu baax Guèye. maa ngi lay delloo ziar lu bëri bëri bëri. déglu yaakaar naa déglu nga jot ngaa déglu waxtaan bi. waaw maa ngi ko doon déglu macha allah. waaw daa mel neex na lool que c'est riche vraiment c'est am na solo parce que boo gisee forme bi sax mooy euh, sunu mag ñi ñu am ñuy valeur. waaw gor àll bi defar ko ba mu mel nii dem bàyyi nu fi. Mhm. ba fàtte leen dafa dul yoon. waaw tubaab yi nag euh, soo gisee ñu xaw noo raw li ci ëpp yëpp mooy dañu doon dañu dul fàtte seen ni maam. dëgg la dëgg la ndaw sax bu ñu la dee préparé boo juddoo di nga fekk nga am compte banque. di nga fekk ay film fekk fi ay photo fekk fi ay mbind dëgg la fi nga mën cee référé wu xam naka nga mën a euh, préparer sa àdduna ak na ngay attaqué signature yëpp nga fekk fi. wallaay dëgg nga wax. donc ñun nag ñun suñuy maam comme dañu notoon li ci ëpp dañu notoon. Euh, fexe ba fexe ba ba nu fàtte suñu bopp fàtte suñu aada fekk fàtte suñu culture diine ji diine ji ñëw fekk si ko tam diine ji ñëw tam ñëw am ñoo xam ne fu lu baax nekk am na am na lu bon mhm. boo ñëwee di jàngaleeg di yeete am ñoo xam ne ñu ngay jàpp jaam ci suuf di ko tuddee tuddu lislaam am na ñuy def noo xamante ne seen bakk lañ ci jiit di ko tuddee lislaam yooyu yëpp mu nekk ay ay ay njuumte yoo xam def ci am donc day baax nag dañu am ay maam yoo xam ne ngi fekkee ñu ngi nekk ci lébu gi dëgg la euh, te ndakaaru bi muy sosu boobu colonialiste yaa ngi fi. mais dégguma benn yoon lébu bu ñu fi mos a not mbaa lébu bu ñu fi def nangam nangam te boobu ñoom am nañu seen souveraineté am seen gouvernement am seen i ndey réew ak seen i jaraaf ak seen yëpp ñu am ko. ba ñu tudde ko dëkk raw tudde ko nangam nangam moo tax man ñu mën na sama xalaat mu doon dajale dalal leen ngeen waxtaanee mag ñi. de relancer waat xale yi ñu xam ni ñun fi ñu bokk dafa baax. ñi nu meññ dañu baax kon mbaax rek moo nu war te ànd nekk benn rek moo nu war loolu mooy yële moom la Abdou Khadir doon waxtaan léegi ma indi nga indi sa contribution ah, asalaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi toog si plateau bi yëpp di nuyu euh, Alioune Mbaye bi nga xam ne moom woo léegi mm-hmm. di nuyu tamit euh, kilifa Sud FM di leen ñaanal rajo bi gën a yokk jëm si kanam man dama yàgg suivre Sud FM depuis que bi mu ëbbee ba léegi daanaka dama koy suivre di nuyu tamit euh, Cheikh Abdou Khadir Jeelaani Gaye mu nekk mbokk bu baax ku am yitte ku bëgg ay mbokkam ku fonk ay mbokkam ku yëg ay mbokkam <laughs> mbokk rek ko ñor histoire u Ndakaaru rek ñor histoire lébu bi rek moo ko ñor ñu koy gërëm bu baax di ko tiitaroo tamit fu ñu toll waaw xanaa li may wax rek mooy si li ma gën a xam si côté maam Youssou Bamar bi nga xamee ne euh, man maam la si man moo jur sama sama Abdou Karim Gueye moo ma jur Abdou Karim Gueye Cheikh Ibra Gueye ko jur Cheikh Ibra Gueye Youssou Bamar ko jur balaa may wax si maam Youssouf Ba ma may wax rek si organisation bi nga xamee ne wax nga ko si lébu yi muy tubaab yi dañ ñëw fii fekk lébu yi am seen république loolu euh, Cheikh Abdou Khadre Jeylaani wax na ko xanaa dama si dellu rek ñu organiser am seen président am seen président assemblée nationale amuñ seen député amuñ seen seen lépp daal loo xam ne daal lu république waroon am rek tubaab euh, lébu yi amoon nañ ko waaw léegi tamit euh, bu ma duggee tuuti si mag ju mel ni ki ñuy wax Youssou Bamary Gueye moom mën naa ne mi ngi euh, judd mille sept cent quatre-vingt-dix-sept fii à Dakar mille sept cent quatre-vingt-dix-sept papam bi ko jur mu ngi tudd Bamary Gueye Bamary est né en mille sept cent quarante-trois papam hmm. à Dakar boobu temps bàmmar boobu fa jur jullit jullit la woon mu nekkoon nit koo xam ne ku amoon xam-xam alxuraan jàng alxuraan xam lu bëri si diine bi hmm. ba si wéy juróom bi ko juróom tamit muy bàyyi naar géey hmm. moom fii da juddoo histoire am bu ma naree dugg si histoire am bàyyi gudd waaye tamit moom tam fii da juddoo léegi lu lu jëm si Youssou Bamar Gueye moom bi mu ngi mille sept cent quatre-vingt-dix-sept mu dund si mille sept cent quatre-vingt-dix-sept ñetti at hmm. ñii sax nee nañ mille sept cent quatre-vingt-dix la judd ñu ne moo Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoom bokk benn at bi ñu judd hmm. léegi ndax yàlla def na moom dund na huit mille huit cent yëpp bu mu jeex moom moom moom moom. Euh, ak Amar Gueye Youssouf Amar Gueye moom ak maam Cheikh Omar ñoom bokk nañ jamono. waaw bokk nañ jamono. parce que ñu da ngeen ne mi Cheikh Omar mi judd 1790. mais Youssou Bamar ñu ne mi judd 1797. mais am na mag yu ne 1790 moo gën a wóor. donc moo Cheikh Omar Fouti bokk nañ jamono. moom moom nag yàlla def na dund na cent ba mu jeex. dund si 1900 yi 19 ans. allahu akbar. donc il a vécu cent vingt deux ans. gudd fan xewi na. waaw <laughs> macha allah macha allah yàlla def na ba bi muy am ña cent ans. Hmm. ñu ngi nekk si yéeg fas di dawal fasam. Hmm. Mm-hmm. léegi nag moom il a été élevé au grade de cheikh. Mm-hmm. Hmm. par cheikh ah. na cheikh Sadbu. Aydara cheikh na cheikh Sadbu moo ko moo ko cheikhalul. moo ko cheikhalul waaw. parce que ñoom ñoom ñoom. il il fut l'un des premiers disciples xaadir. mais est-ce que mën nga ma ñëwal tuuti ci diggante maam Youssou Bamar moomu ak euh, Cheikh Cheikh Cheikh na Cheikh Saad bu euh, nga andi. waaw man waaw mën naa si dugg tuuti. waaw. parce dama bëgg a su ma si duggee rek. ak xaadir tam gën si dugg. waaw relation libu yi ak kilifa diine yi nag ci laay moom laay bëgg a mujjee. xam naa ne bi huit minutes moo ma dese pour pour mais ñamal ma ci en ba ma ñëw ci Youssou eh, Abdou Khadre waaw Cheikh na bu ak maam Youssou ñoom dañu bi ñu dajee sa ndar ñu gisante ñoom ñaar maam Cheikh na Cheikh Saad bu xool maam Youssou Bamar am leer bu mu gis si moom nekk maax yow war nañ gisee gis naa ëllëg sama njaboot ak sa njaboot dinañ daje dinañ jaxasoo mhm. ba feex jam jamono mhm. bi maam Youssou ñibbisee Ndakaaru waxtu boobu temps maam Youssou Bamba moo doon ndey jàmbur te la culture lébu mhm. ñu waxtaan ak waa Ndakaaru yëpp ñu war a teeral euh, gan si Cheikh na Cheikh Saad bi Cheikh na Cheikh Saad bi ñëwee Ndakaaru lébu Ndakaaru yëpp daje rey lu ma téeméeri nag mhm. pour teeral gan boobu. Mhm. bi ñu tey rey lu ma téeméeri nag. ba chômage stable bi ñëw ndakaaru ñu ganale ko ganale boo xam ne wax dëgg yàlla amatul sax si jamono ji parce que ku ñu rey téeméeri nag jamono jooju. bareetul de. amatul. léegi si chômage stable ak maam Youssouf bi ñu bi ko maam chômage bu néewee sama njaboot ak sa njaboot dinañ jaxasoo ba fin des temps loolu yàlla def na ko. parce que maam Youssouf Bamar si boppam. jël na ñaari jarbaatam yoo xam ne ku tudd Lika Mbodj. ak Marème Sylla li ko Mbodj ak madame Sylla ñoom dañu dem féete côté Casamance muy Daaru Salaam foofu. Hmm. muy waa kër Cheikh Mahfous Aydara yooyu. ñi ngay gis ñu nekk Daaru Salaam shérif yooyu yëpp. Hmm. ay sëtu maam Youssou Bama lañu te ay sëtu Cheikh na Cheikh Saad lañu. allahu akbar allahu akbar moom mooy Sërif Mahfous. voilà ñoom la. léegi tamit mu jëlaat beneen sëtam. Hmm. boo xam ne Cheikh Ibra Gueye ko jël. muy Cheikh Awa Gueye. Cheikh Awa Gueye boobu la jël may ko Cheikh Taalou ay Aydara hmm. bi nekkoon xalifa bi. est-ce que. Cheikh Taalou bi Aydara boobu ñu am si ay njaboot mu taawloo si Cheikh ay Aydara bi nga xam ne moo nekkoon imaamu zawiya xaadir bi nekk si Lamine Gueye angle Filsefort. Cheikh Tourab Cheikh xam am naa ko. waaw ñu am si Umu Fadl Umu Fadl bu jigéen. Umu Fadl. am si soxna ay Aydara ak soxna ay Aydara. léegi Oumou Fadal Aidara boobu. Hmm. mooy wuy jot bu jigéen Cheikh Cheikh Cheikh Chérif Atkhana Aidara bi nekk Tëngéej. Hmm. Chérif Atkhana bu baax ndeysaan yàlla kii yërëm. waaw hmm. léegi euh, soxna Xaysa Aidara. moo jur Cheikhul Khalifa bi nekk Ndar. borom gëlëm bi. moom moom mi ngi fii yaayam mi ngi fii di ñoom ñëpp ñu ngi fii di dund. Ah, seen rakk bu jigéen bu ñuy wax seen xisa. Hmm. moo wàññeeku bu yàggul yal yàlla yokk leeram. amiin te taas ñu si barkeem. baarakallah baarakallah. waaw moom daal noonu la dafa euh, Cheikh ah. na Cheikh Sadou. ndeysaan hmm. na Cheikh Sadou. ba doomam bi nga xamee ne tamit njabootam yu si bëri. Hmm. muy Cheikh Abdou Khadir Jeylaani Gueye boobu toog. nga xam ne tafsir Abdoulaye Guèye doomu Yusuf Bamar Guèye mhm. moo jur maamam bu jigéen ki koy wax maam Oumy Guèye est-ce que est-ce que maamam moom tafsir la tafsir alxuraan la ko mag a mag si alxuraan macha allah barakallah waaw léegi daal de ce fait mhm. doomam boobu tam ñuy wax Cheikh Ibra Guèye mhm. moom dafa tombé génération ak Cheikh Talibia macha allah ba jël doomam may ko Cheikh Taalib yooyu muy ki ma wax léegi muy Cheikh Awa Guèye noonu la ñuy jaxasoo chérif yi tey jii waaw parce que chérif euh, yi boo leen xoolee ñu su bëri boo leen xoolee la dañu gis ne dañuy jël su Bama si si yàq ak si lépp daal macha allah kon nag li Cheikh na Cheikh Saad boo waxoon kon kon jamono jamono jamono dëggal na ko ba léegi moo am léegi. waaw euh, xam naa euh, xam naa dama lay bàyyi incha allah. ndax léegi pour euh, daaneel lu ndaw rek. waaw dinaa ñëw ci maam Limaamu xam moom libu lébu la. waaye waaw maam Limaamu tam libu la. xam nga sëñ Tuubaa jaar na fii si xaj maay jaar na fii mag ñu baax. wallaay jaar nañ fi te loolu lépp bëgg naa bëgg naa ñu ñëw ci. léegi kon yow nga li nga bëgg li nga waaw daaneel li nga bëgg wax. waaw li ma doon wax rek ma bi bi lébu bi dajoo. Hmm. ba maam Cheikh na Cheikh Saad bi ñëw. Hmm. ñu ne ko léegi dañu bëgg nga ñaanal ndakaaru mu ne ah mu nekk waa waaw bëgg ma ñaanal leen mu ne ko ndakaaru di xumba nit ñi di fi ñëw toujours mm-hmm. mu tibb suuf daal di ñaan ndakaaru ne ndakaalu toujours nit ñi dañuy jóge ci kaw di ñëw mm-hmm. mu ne lan tamit euh, dañu bëgg nga ñaanal ndakaaru am ndox bu baax mm-hmm. bi mu tibbee si suuf si mu ne dina am ndox buy jógee waalo mm-hmm. du wàcc si di wàcc si ba ñëw ndakaalu mm-hmm. te ndox bu neex lay doon loolu yëpp maam Cheikh na Cheikh Saad ñaanal na ko ñaanal na fi mu ñëwee ndakaalu ñaanal na ko lébu yi barakallah xam naa xam naa waxtu moo moo ñu xoj nii ndax mais du ñàkk daañ des waat ak yow incha allah jërëjëf jërëjëf eh, eh, Birama Gueye Birama Gueye Birama Gueye Abdou Karim Birama Gueye Abdou Karim ah, jërëjëf Abdou Karim Gueye merci beaucoup incha allah ah. ñu jaajëfal ko bu baax Abdou Khadir xam naa dañuy bàyyi ab sa ilimaan wan waaw mu tënk ak ñu xabaar yi waaw bu ko defee bu daanee rek ñu na àggal nag waxtaan incha allah jërëjëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñu jaajëfal leen baax a baax a baax sant leen bu baax a baax ci ànd bi ak yéen sunu xol sedd na ba ci kanam tuuti incha allah kon Absa ñu ngi lay nuyu baax wan di la ñaanal yàlla yàlla yàlla sàmm la te taxaw la nga ñëw tënk xabaar yi ay dëgg ku ku def économie suba. économie du am par samedi ah, dimanche. boobu mooy sama émission <laughs> jërëjëf Absa Elimane man.